il faut am ndox du ma ñibbi mukk te aw ma ndox du ma ñibbi mu fi doon fanaan tam du ma ñibbi barka yonent bi bëgg ma am jaara di murit di Baay Faal barka yonent bi du ma ñibbi mukk te aw ma ndox billaahi wallaahi sama góor gu baax gaa ngi ñu suul Tuubaa du ma ñibbi te aw ma ndox barka yonent bi ndox mu ma jëlee ci teenu soxna jaaratu laay xanaa dem nag di ko barkeelu jë fas ci yéen yët sama njaboot ak ni ci soxna jaara daan lootale sëriñ bi di ci sonn ñun ñëpp buñ demee saafara ci fas yéenee nag liggéeyal soxna jaara rek. barabu boo xam ne ab teen la boo xam ne ndox lañ ci barkeeloo ndox mooma tamit desitu Soxna Jaara lañ ciy topp ndax buñ tuddé teen bi tuddi Soxna jarah. kon day melni nekki na mom fi nekkom don ci jëfandiku barki ba dess ci mom lolé la nit ñi dabu si muy barki ñu bari koy wut ci lo dégg ne mom lañ koy défé ci ndox mi. Ah. wa ndox mi nak di fi ñu ni ni nit mënu la ci wax ni la day faj li wala day def li wala day joxé li waye nit ku ci nekk faj na ci jangorom ju bokut ak jëc moromam faj. loolu nag ci gëm-gëm bi lay aajo. nga ne benn benn bi